kenn umpewul mbir ne coalition Yewwi Askan Wi euh, commune bi nga xamanteni moy sax man fi fala yeewoo di commune Rufisque Est ñoom ñoo gagné mais damay sant centre yi nga xamanteni man fala doon liggéeyee mais surtout centre yi nga xamné wa waa ñofay voter ñaari centre yoyu coalition Benno boko Yaakaar moko ko gagné. loolu nag dafa am solo ñu relever ko ci contexte bi nga xamanteni fi lañu nek pour ñaari mbir d'abord parce que dañu voter sen doom bu len faté né élection locale que la élection locale da ngay fal ki nga xam da ngay fal ki nga wolu da ngay fal ki nga bëgg da ngay fal sa doom fal ngeen ma ndax bëgg ngeen ma fal ngeen ma ndax wolu ngeen ma fal ngeen ma ndax yéen jur beneen bi xam ngeen coalition ba tey askan wi dañ fi am koo xamante presque ñu ñoo bokk koñ muy sir la nga xamante ni li nga xamante ni euh, moom moo am moom mooy tête de liste mais moom dañ ko duma ci fi nga xamante ni moom mooy bloc scientifique foofu coalition Benno Bokk Yaakaar euh, moom moo ko moom moo ko gagné. Tëngéej soxna na liggéey donc maa ngi gërëm waa Tëngéej ndax bi ñu xëyee ba tey ci suba dafa am ñu may dégg. ñoo xam ne dañuy maanaam wuruj naan <laughs> Nafi dafa joxe woon consigne de vote boo xam ne maanaam bu leen votel candidat Ismaïla Madior Fall foog naa boo leen laajee Ismaïla Madior Fall dana leen ne loolu de ña koy wax amuñu xam-xam ba pare amuñu dégg-dégg amuñu dégg-dégg ndax ku dégg li ma wax sànq ne centre de vote yi nga xamante ne nii euh, fa la waa Colobane dëkk ñoo ko jox seen doom ne ko Nafi jëlal